Bienvenue sur Salam Vision. Mesdames et messieurs, bienvenue. Vous suivez les programmes de Salam Vision. Voici une synthèse de l'actualité à la présentation, cher Oussarou. Parlons euh, des situations euh, hors de chez nous. Le Sénégalais Ousmane Tounkara euh, sera bientôt livré par les autorités judiciaires du Sénégal. Euh, c'était hier aux États-Unis, ce Sénégalais euh, passe tout son temps à injurier, à diffamer, selon certaines sources, Euh, quelques autorités euh, sénégalaises. Nous y reviendrons très prochainement. Restons dans l'actualité nationale. Le professeur Raoul, euh, le spécialiste scientifique français, est à Dakar. Il est en train de s'en tenir avec les responsables du ministère de la Santé, des professeurs, des partenaires pour tenter de trouver une solution euh, contre ce coronavirus. Restons toujours sur l'actualité nationale, les organisations des droits humains telles que la RADO la Ligue sénégalaise des droits humains, euh, Amnesty International, hausse le ton, demande aux, aux, autorités et aux partis politiques de garder la stabilité et au Sénégal. Le Sénégal n'a jamais connu une telle situation chaotique et désastreuse à affirmer ces organisations des droits humains. Évitons euh, des tiraillements et des guerres. Euh, évitons également euh, ce qu'on appelle euh, de fausses informations. les, les populations de Guédiawaye en collaboration avec la commune de Wakhinane Nimzat avec Tiers Monde International une ONG euh, se sont réunies ici dans la banlieue pour tenter de lutter contre l'insécurité grandissante au niveau de Guédiawaye. Et selon le commissaire de cette localité, euh, il y aura des polices de proximité qui vont veiller au grain, des campagnes de caravane et de sensibilisation pour dire non à l'insécurité qui persiste au niveau de la banlieue. L'hôpital Djam de Guédiawaye a reçu euh, euh, sous les mains du ministre de la euh, important lot matériel d'une valeur de de, de, de francs CFA. Euh, C'est un ouf de soulagement euh, pour, de cette localité. Nous y reviendrons également dans nos prochaines éditions. le président Ange Quadera a prêté serment hier pour un deuxième mandat. Des Koutis se sont réveillés hier nuit tard au Niger. Il s'agit bien d'un coup d'État déjoué par des putschistes, mais heureusement, euh, la garde présidentielle a quadrillé les lieux pour éviter des affrontements. Je vous rappelle que le Niger a un nouveau président, il s'appelle Mohamed Bazoum, qui va prêter, prêter serment ce vendredi. Euh, nous nous rendrons à la CPI, l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo et Charles Blé Goudé euh, seront fixés sur leur sort ce s'ils seront libres ou pas, euh, Laurent Gbagbo et Charles Blé sont point du doigt par la CPI euh, lors de son règne, c'était en Côte en 2010. 3000 personnes ont trouvé la mort. tout de la version mbokk yi asalaamaaleykum ñu tënk ko si kàllaama ko ci barma euh, Ousmane Tounkara mooy doomu Sénégal am nekk fële ci États-Unis dem nañ ko doon euh, àtte mais dañ dañ taxat procès bi beneen jamono kooku nag euh, dañ ko tumal dafay faral di di ŋàññi di saaga ay kilifa fii ci biir réew mi Ousmane Tounkara moom lañ fas nag indi Sénégal àtte ko li jëm si mbirum xibaar dañ ko jëmale si organisation des droits humains mooy xam ne ñooy xeex ak wareefu doomu aadama jël nañu seen i kàddu ne Sénégal nag jot na pour ñu mën a ànd ak dal bañ a indi ay fitna ci réew mi ki nga xamante ni mooy RADDHO Amnesty International ak Ligue sénégalaise des droits humains ñoom ñu doon euh, waxtaan ak euh, askan bi euh, li jëm si mbirum santé le professeur Raoul Taxarañ Taxarañ Ngor nekk professeur scientifique xam mooy nji mooy yëngu si mbirum wér-gu-yaram moom nag mi ngi Dakar depuis démb tey na jàkkaarloo taskatu xabaar yi seet naka la ñu mën a xeexee coronavirus boobu. hôpital Dalal Jàmm bu Guédiawaye ah ñu ngi rek mbégte am na benn matériel bu am solo boo xam nag jot nañ ko fa yóbbu dem si teewaayu ministre de la santé Abdoulaye Diouf Sarr toll na si ñaari milliards ak 74 millions. bitim réew la ñuy doxantu xam ngeen fële ci Centrafrique am nañu benn président bu bees bu may ñaareelu mandat di Ange Touadéra waat na si kanam askan bi ak devant euh, conseil constitutionnel fële Niger dañuy yow big si guddi. Euh, ñi naan coup d'état la ay woy fippu euh, naan nay doon écarté bu de la république heureusement nag euh, ñi xam ne mooy garde présidentielle yooyu jot nañu tax woy fippu yooyu ñu ngi koy tëj fële ca fële ca ki fi nekkoon président bu Côte d'Ivoire Laurent Gbagbo ak Charles Blé Goudé dañ leen tumaloon élection 2010 ñu faral ay doomu adama yu bari toll si ñetti junni mbokk yi jàmm ak jàmm yeneen xibaar incha allah ëllëg